mooy diversion bi mal Malick Pape Maguette wax léegi xam mom dafa diversion mais qui divertir actuellement mooy état bi état bi day tergiversé état bi fi nek ni dañuy tergiversé xamaguñu fuñu jëm c'est ça le problème parce que mënoo dig nit ñi projet depuis des années nit ñi top la di xeex di xeex nga ñew nga falu wara dem urgemment ci affaire yi nan ay règlement di xaar ñom ñoy divertir nit ñi té man j'ai l'impression que léegi nit ñi dañoo xawa ragal parce que euh, pas mon Macoura pas Maguette ak Senghor mais man nima gissé sen discours dafa mel da ngeen di défendre Sonko. parce non si xam ta non man je parle librement kuma ma xam nii la ma mais Bougane Gueye Dani man ñep ñëpp xam nañ ni je suis pas fan de Bougane mais limu wax ni nañ ci poser wu question dafa wax ni est-ce qu'il faut pas fusiller les les les politiciens ku ko fi njëkk a les ku ko fi njëkk wax du Sonko Sonko bimu ko njëkkee wax amna na ñu ko ci soutenir woon léegi nañu nañu waxtané limu mu wax. Seigneur, il n'a pas besoin de juger Bougan Gaydani qui en fait non, laisse-moi continuer après. non non non non non je n'ai pas jugé Bougane Gaydani. je n'ai fait que poser une question. Bougan a dit est-ce qu'il faut fusiller les politiciens ouais, mais répondez à, cette question. non non je vais pas répondre à cette question parce que j'ai posé une question j'ai dit. Bougan a posé une question en disant est-ce qu'il ne faut pas fusiller les politiciens J'ai dit est-ce que Bougan n'est pas dans les politiciens J'ai posé une question. d'accord mais l'autre question question bi mooy lan moo Bougane tey ki porté politique générale réew mi moom moo njëkk a wax loolu mais dama waxtaan ak démb barki démb grand Ibaabu Rapadio mu ni am na benn borom xam-xam nee na politiciens yi benn yoon rek la ñuy wax wax dëgg mooy jamono ji ñuy jiñante ni kii naan yaa fen kii naan yaa fen nañu posé wu question ci loolu parce que su fekkee ni ñoom ñëw nañ Sénégalais yi kenn gisagul rupture ñëpp a jaaxle. acteurs yi doon soutenir sax passif, bi ñu si bëri ñu ngi commencé démissionner non laisse-moi continuer quand même. non ah, mais attends mais rupture non, non, ngay wax non, kenn gisagul dara ak yooyu ah. non, ah. défendre ñu défendre ñu Ousmane Sonko. parce que amuñu ci benn intérêt. ñun benn lecture bu gàtt ñu man bok, man sama bok, man ci xalaat bu gàtt. ci xalaat bu gàtt bi nga xam amna ko ak lecture bu gàtt bi nga xamante ne ko nee la ñaari hypothèse la la tek. Moy que né nee nañu.

ban lan lan moo fi nekk ba ñuy teg pression waa ji kut ko kut daar daar mu war a dem dem def ji politique générale man loolu laa wax beneen bi mooy que ne yow dama ànd ak yow ci benn côté mooy que ne dafa am projet boo xamante ni dañ ko tàllaloon askanu Sénégal teg ci taabal bi di ko jaay askanu Sénégal bi ñoom ñëpp génne seen xaalis génne seen koppar ñëw jënd projet bi ñëw adhéré ci loolu kon boog projet boobu nga xamante nii dañ ko tegoon mais nañu ñëw ñan ñoo nekk assemblée nationale ñu teewal askanu Sénégal nañ dem projet boobu nga xamante ni moom am na ko ak li nga xamante moom mooy mbébétam générale lan la le premier ministre il vient wax ñom lan moy sen bébé ci askanu Sénégal lan moy sen priorité ci lan lañ wara war a sukkandikook nangam non noonu la n'est-ce pas mm-hmm. mais politique générale meun nañ ko jëlé comme campagne électorale campagne li nga xamante mom nga doon wax saa yo len falo saa yo len togué li ngeen def ak li ak li lan moy nek priorité en tant que euh, chef d'entreprise wala bok en tant que euh, wa chef d'entreprise comme ci côté média ci limay meuna wax ak lima min da ngay ñew nga tek sa ligne éditoriale man pour man premier ministre lool la wara dem def yi fofu non ci assemblée nationale ci sama xalaat bu gatt mais j'ai adhéré dama dama dama dama dama and ak yow ci li nga wax ci benn côté moy que ne dañu amone benn projet buñu exposer won pour askanu Sénégal askanu Sénégal ñeu adhéré mais légui ana lan motax ana lan lay ragal pour dem dem defi dem dem assemblée générale dem def ji politique euh, général man lool la wax. ben côté bi mani ben côté bi mani euh, est-ce que li loi wax xam nga boy wax da ngay wax ci ñaar. moy li nga xam ci yoon li mu teurel lan la hein yoon li la wax amna droit tok ba 6 mois amna ko ko fi defone di Abdoul mbay régime euh, bu Macky Sall tok na 6 mois door dem def defi politique général waaye léegi ban pression lañ ko mëna tek pour mu dem def ji ko. mais tamit beneen bi mooy ban gal-gal la ñu teg ci wàllu lii nga xam moom mooy règlement intérieur ba bañ a dem dem defi ji politique générale man loolu laa wax. ok gis nga li nga wax waaw ah, jubóo nañ mais mais ok li ma bëgg a leeral mooy Abdoul Mbaye du exemple du exemple bu baax pour pour Sonko xam nga lu tax xam tax ñoom bi ñuy ñëw ci nguur gi mosuñu wootee rupture ñoom ci continuité la ñu nekkoon Macky Sall bi muy ñëw ci continuité la nekkoon Ousmane Sonko bi muy ñëw rupture la wax changement complètement léegi pour leeralal sénégalais bi ni ko lan moy déclaration de politique générale moy ma ñëw tambali liguey bi. kon da nga jàpp ne acte yu di poser ni rupture amagul. rupture amagul ba paré sénégalais sénégalais bi bi demone voter ji sonnoon ci affaire yi soné ko Sonko dafa war a ñëw commencé liggéey bi nan damay xaar ba si kanam lool moy déclaration de politique générale dama bëgg a commencer ni ma bëgg doxalé kon pour le moment ba légui Sonko ci continuité Macky Sall la nek li Macky li fi Macky tegoon si la nek di dawal dawal na 3 mois ñu ne ko léegi ñëwul commencé sa yëfu bop loolu lañ ko wax déclaration de politique ñëwal commencé sa yëfu bop ni nga bëgg doxalé parce que doxal nga doxalinu Macky Sall 3 mois après ton élection mu ni mayat leen ma ba ci kanam c'est c'est ça le problème. non est-ce que est-ce que Sonko moo ne mayaat leen ma non non mais parce que non Tchalla, je ne je ne défends nullement so nullement pas le premier ministre Sonko mais Ousmane Sonko Ousmane Sonko mosuma dégue, non non non dinaa ko tontu parce que xam nga pas problème il faut encore une fois mhm. ñu leeral askan wi nga xam ne ñoom ñoo ñi déglu Ousmane Sonko mosuñu ko dégg mu wax ci déclaration de politique générale si c'est pas Ben yoon bi mu wax ci conseil des ministres qui dafa wax ni je me prépare pour cette déclaration de politique générale tout en incitant à ces ministres ñu indiquer ce li nga xam la préparer pour déclaration de politique générale donc ce débat bi nga c'est la presse mais aussi c'est certains cadres qui ont fait que nous ci sphère politique bi Ousmane n'a jamais parlé que de deux def déclaration politique générale. parole cest à li il est le chef. Sonko il est le chef et c'est un grand leader lu mu soxla tey tey mu ni gars yi indi leen mook sama table ñu indi ko ci taabalam bi il est le premier ministre ba pare il est le mentor du président le président moo taxaw wax ko mu je suis sonkoïste après son élection kon loolu ay détails la nañu xamal sénégalais yi ni leen coowu déclaration euh, politique générale bi ñuy wax mooy dañoo woo Sonko ni ko assemblée jàkkaarloog sénégalais yi wax leen noo bëgg nan nga bëgg commencer ba pare commencer. Muni non xaar leen ñu dugg ci ay détails ay règlement intérieur ay affaire de constitution ñu dugg ci détails yooyu pour tardel mbir bi alors que Sonko moo ñu diggoon projet bu yàgg ni yor na solution pour jubbanti réew mi ñun solution boobu la ñuy xaar gis nga yaa ko wax léegi euh, grand Makoura sénégalais yi dañoo sonn les sénégalais sont fatigués dañoo sonn y a beaucoup de priorités ñuy dugg duñuy ñuy dugal ci ay détails nañu nañu bàyyi calcul politique yi

même Guy Marius Sagna sax bind na benn texte temps yële ni système bi fi nekkoon mo fi nekk ba léegi diffuser diffuser affaire bi demé non donc kon gaay nañu def fulla ak fayda xam Sénégal dafa bëri ay urgence dañu soxla changement dañu soxla ñom ñi ñoo améliorer les conditions de vie des Sénégalais ba paré ñu commencer ko ci ñom gis nga yu wàññi ceeb ak wàññi diw ak nañ ko commencé ci wàññi le train de vie de l'État nañu wàññi sen salaire yi nañu wàññi sen privilège sen pri nañu ko njëkk a ba paré parce que tamit euh, li sëñ Abdoulaye doon wax séddaleel doy na cër ñoom nañu nañu nañu libéré seen i affaires yi ba pare dooga nag fekk ji grandes entreprises yi moulin yi ak meunier yi pour mën a rëq dara si ñoom loolu moo gën a. Euh, légal c'est bon xoolal. 5 xam nga débat Omar. 5 5 secondes rek 5 secondes parce que loolu loolu loolu du ma ba 5 secondes mu wax mais Omar c'est juste que débat ku nekk am nga gis-gis ci ci pour pour lii Pam Maguette dafa ànd ak yow Pam Makoura joxe na xalaatam Lamine Senghor également il est libre loolu la rek mais ñoom moom nekku fi pour pour défendre ki nga xam ne Ousmane Sonko sa xarit la. voilà vas-y rapidement en fait c'est vrai que c'est en fait boo xoolee euh, lii mooy un débat d'idées en fait. ku nekk dafay wax li nga xam moom mooy position am mais euh, wax ko ci anam boo xamante dañ ci respecté wante entre nous et c'est ça c'est c'est ce que j'aime en lui euh, ba boo xoolee li fi ma fi ma bëggoon ñëw pour compléter mooy jamono ji rupture bi ngay wax xam nga dañ ñoo jaay sénégalais rupture mais cette rupture-là, souvenons-nous encore une fois de cette déclaration qu'a fait le président de la République à la veille de son installation au palais présidentiel, mu le 3 avril. Il a dit « Je veillerai scrupuleusement au respect des institutions ». Alors, ces institutions-là, y compris l'Assemblée nationale. La question que l'on doit se poser aujourd'hui, c'est est-ce que ou bien comment on a fait pour n'y respecter les institutions, notamment l'Assemblée nationale, pour falsifier un règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Et ça, c'est l'ancien régime qui l'a fait. Cette rupture-là, ça doit commencer par là. Moi, n'y a qu'à ci li nga moment institution il n'y a qu'à institution yi falsifier le nga règlement intérieur mais nous Fancoco, ko reprendre encore une fois tëggaat règlement intérieur bi dem ci nationale merci Seigneur. le Omar après revoir. Après, nous yow <laughs> balaa ñuy euh, point par rapport à la dissolution de l'Assemblée nationale on en parle également depuis mais nous avons japonais, pour nous, euh, pour mu am euh, faaw ñu sur suñu code électoral alors bu que loolu war nañ ko càmbaraat également déclaration de politique générale vous que que na ci ñu xaar ci ñu tas assemblée est-ce que nous gawa une déclaration de politique générale Oui, Voilà. ça. comme nous. nga débat kenn ku ne c'est la contradiction des idées que naissent les bonnes idées loolu man loolu laa loolu laa mës gëm gis nga Omar respect des institutions dama am association typiquement wutudd Agissons ensemble boo xam ne maa ko créé reconnu la l'État du Sénégal loolu lay xeex président Macky Sall ba mu fiy nekk mosumaa nangu koo xam ne ni wax na ko dara mbaa mu teg malgré tout ce man man man gisuma woon président Macky Sall comme président APR mais dama gisoon Macky Sall en tant que institution de la République du Sénégal nga koy wax xale yi na respect des institutions ba pare nag di saafaane institution bi j'étais de l'art des